alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa tabi'in la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim hasbunallahu wa ni'mal wakil assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngi nuyu mbokki jullit yi mbokki taalibe yépp mbokki lislaam leen jox seen wàccuwaay tey ñaan yàlla borom bi subhaanahu tabaraka wa taala mu defal ñu ak njéggalam ju matale mu mel ni dañuy dellusiwaat ci suñu jotaay ak yóbbulub ndaw ñi muy jotaayab xam-xam di jotaayu fàttali kon niñ ko baaxoo waxee ñu nekkoon di jàngale téere bii ñuy wax aljawharun nafis muy téere bu am solo suñu xoolee nag sunu jotaay bi mujj ñu ngi doon jàngale ci nit ki di ab jullit rawatina di mu di nim mu war a watandikoo làmmiñam ci wax ju ñaaw ak wax ju ñaaw mooy lan ak werante ak werante ci boppam mooy lan kon nag mu mel ni dañuy tàmbalee suñu jotaay tey ci soof ci suñu jotaay bi mujj nit ki yi mu war a wattandiku ci làmmiñam mooy yi nga xam te nii nit ki di ab jullit di mu kalaf war na ko wattandiku ci làmmañam di ko tudd wala mu ko ciy def bismillahi rahmaani rahim moo tax sëriñ bi wax ne hakaza naka yii alyaminu giñ bi ci fase muharramun lu ñu xaraamal la walaysa bittifaaxi déet muy luñu ñu dëppoo li nax nahyi ngir xibaaru tere ga anil yamini walif giñ bi li xettixi ci goreel wattalaaxi ak fase fi tab yii ci biral ga sëriñ bi wax ne tere nañ ci ab jullit rawatina mu kalaf muy wax di giñ ci fase muy giñ ci fase wala muy giñ ci goreel ab jàmm mu ne loolu lu ñu xaraamal la bu waxee nag giñ ci fase wala giñ ci goreel daf cee jublu ne nit ki warta toog ci misaal toog di waxtaan ak ay moroomam ba mu neex ko mu ne daal sama waxtaan yi may waxtaan bu dee nar naa cee fen sama soxna si fase naa ko ma ci feneen rek sama sama soxna si fase na wala mu ne sama waxtaan wi bu ma ci feneen rek sama jaam bi goreel naa ko ci jamono ji nga xam te ni jaam dafa am ndax jaam jamono jamay am goreel ab jaam lu am tiyaaba moo tax ci jamono joojee lay lay wax ne bu doon nit dafa toll ci goreel ab jaam di ko giñ naan waat naa ci yàlla ne su ma naree fen wala su ma naree génn kër gi tey sama soxna si fase naa ko wala sama jaam bi goreel ne lool lu ñu tere la lu ñu xaraamal la waaye lu tax mu wax lay sa bitti nekkut lu ñu dëppoo mooy dafa am ñenn ci borom dañoo wax ne loolu nekkul lu ñu waaye lu ñu sib la mu wax ne man ixtaada ku baaxoo bihaa ci moom giñ fase googee ala tartibi ci toftale ko fa innahu naka moom moomee yakuunu war nekk za taadibi di ku ñu yar is ngir laysa yaxalifu déet giñ bi ka talaaxi ci lu mel ne fase wala xettixi ak goreel aadatan ci xaada si wal fusaaxi ndare ab saay-saay mu nekkat képp koo xam te ni baaxoo tàmm na di def lu bari di wax wax ji mel noonu lu muy wax rek di ci dugal fase ay soxnaam ak wala goreel ab jaam mu ne kooku kat ku ñu war a yar la waaw dañ ko war dañ ko war a dañ ko war a yar maanaam lislaam bu noon dafa am njiit wala de wala dafa am kuy aate dañ koy woo yar ko tere ko ne ko lii kat boo ko defee tey nañ la daan nangam ko defee ñu yar ko ngir mu bàyyi loolu mu ne tamit képp koo xam te ni day gis nga ko mu faral di giñ ci ay fase wala muy giñ ci goreel ab jaamam def ko muy aada ci moom fu mu toll di ko dem da xam ne kooku kat mi ngi def jëf joo xam te ni jëf ju ñaaw la jëf la joo xam te ni ab saay-saay rek moo koy def kon loolu lu jar a wattandiku la ndax kat li ñuy wax fase suñu boom daf koo na la pare daal di koy bañ lool bokk na ci yi nga xam te ni suñu boom moom la gën a bañ ba pare te lu daganal la ba pare maanaam daganal na ko ba pare mu bokk ci jëm gën a bañ muy fase waaye nag nit tamit mën naa toll foo xam te nii fase du mën a ñàkk ndax mooy gën ànd ba ànd ba ndax mën naa nekk ànd boo xam lorante daf cee am boobaa nag fase du mën a ñàkk waaye daal fase lu suñu borom daganal la waaye nag lu bañ lool la moo tax sëriñ bi di wattandiku lool nit ki ci lu jëm ci wàllu fase mu koy fowee wala goreel ab jaam mu koy fowee wala muy wala mu kon nit ki war la wattandiku yu mel noonu mu ne wa ak wattoom basara ak gis minal xaraami kilo lu xaraam laa yanzuran bum xool maa la nga xam te ni lam yajus nekkut an yanzura di ko xool kan nasari ni ki xool bi nasaratin ci ab xool lil muslimi ñeel ab julit tuusihi gog dina ko lor laa lil faasixi waxuma ab kàccoor aw mujrimi wala ab tooñkat wala aw mujrim mën nañ ko tuddee ab ab mooy koo xam te ni gëmul yàlla laa ba tey aw mujrim wala ab kàccoor wala ab yéefar bal li fi nekk waajibun lu war la alayhi ci moom fii maa ca la nga xam te nii surexa yoonaleef na ko hijraanuhu ak tongam nasihatan ngir laabire li yarjixaa ngir mu dellusi mu ne tamit mu kalaf mi jullit bi war naa wattandiku ci ay bëtam mu xool ci lépp loo xam te nii daganut ci moom mu xool ko lépp lu xaraama xool daal jullit bi war na ko wattandikoo xool ci ay bëtam kon loolu lu xel ay bët dañ koy sàmm lépp lu ñu la loo xam te ni xaraam na ci jullit mu xool ko mu bañ koo xool ci bët yooyu moo misaal ci ne lu mel ni xool ab jullit xool boo xam te ni daf koy lor xool ab jullit xool boo xam ne daf koy lor nga xam ne xoolu een lay doon wala xeel xool boo xam te ni daf koy ragalloo te dara waralu ko lu aj lu lu mbirum aj àdduna dong sa intérêt àdduna ne loolu baaxul waaye nag waxut koo xam te ni ab kàccoor la ab tooñkat la wala koo xam ne dafa jàdd yoon ci lislaam wala mu nekk koo xam ab jullit nga koy xool wala ko nga koy jéppali ngir lan ngir bëgg mu dellu ci lislaam mu ne déedéet loolu moom waxu moom lu baax la loolu lu baax ndax lu jëm ci yàlla la xool jullit bi ngir jullit bi dafa jàdd yoon nga koy xool daal koy tóngu maanaam mere ko mere jullit bi ngir lan dafa nekk koo xam te ni dafa jàdd santaane yàlla yi wala dafa nekk ku jubut nga een ko ngir bëgg mu jub kooku moom loolu lu yàlla bëgg la lu borom xam-xam yi daganal la loolu moom lu mu yàgg rek baax na waaye nag bu dee nag jullit bi nga xam da nga koy xool xoolub een ngir mere ko ngir lan wàllu àdduna rek ñu ne lool nag na ci bàyyi xel ne loo mere ab jullit ci wàllu àdduna sagam mer mënta ñàkk bu ëpp lu mat ñetti fan waaw ñetti fan moom bu mu ko weesu bu ñetti fan rek nanga nga bàyyi lépp loo ko jàppalan te xam ne kat loolu baaxut kon ab jullit warta mere moroom jullitam ci wàllu àdduna lu ëpp ñetti fan waaw lu ëpp ñett bu ñetti fan rek na dem bàyyi mere gépp jubóob moom ndax àdduna rek moo ko waaye bu dee lu jëm ci wàllu àllaaxira nga xam ne danga koo mere ngir mu baax danga koo mere ngir mu jub loolu moom lu mu yàgg rek baax na ndax loolu lu koy dimbali la moo tax mu ne hijraan bu nasihatan li yarjiha mere ko ngir laabiri ko ngir mu dellu ci yoon wu loolu moom lu baax la lu lislaam la kon loolu lu jar bàyyi xel kon nit ki daal boo koy mere mere ko ci loo xam te nii sariixa daf koo santaane nit ki dafa reew nga mere ko ngir mu mu yaroo nit ki dafa jubut nga mere ko ngir mu jub nit ki dafa topp lislaam nga mere ko ngir mu topp lislaam ah loolu moom baax na ndax loo ko mere ba mu xam ne xatal nga ko nit ñëpp mere ko mu xam ne xatal nañ xatal nañ ko ndax lan dafa jubut wala dafa topp yoonu lislaam ba mu jël siwaat ci lislaam loolu moom lu bëgg waaye nag bu dee na ko mere rek ci wàllu àdduna rek déedéet loolu moom suñu moom dafa xam ne nit ki mënta ñàkk mer kon heure bu meree rek bu matee ñetti fan rek na bàyyi lépp lu meral ndax àdduna moo tax àdduna ko tax a jóg kon nay wattandiku ak gisam ni nga xamante ni noonu la ko yàlla santaane ci alxuraan wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko xul lil waxal jullit ñi nañuy damm seenu gis kon ab jullit wërta bàyyi ak gisam rek fu ko neex xool lu ko neex def mooy kon mu teg ci ne wa manahu tere nañu an nasara xool li nisaa i ñeel jigéen alaj nabiyaati ña di way jàmb wakal na i ña di rafet min kulli suurati ci bépp melo wala ci bépp photo alat tisaasi cig bànneexu wala cig lor ka am ne rijaal yi ni ko tooyum góor ña faxsar wattul haasihi yii mu ne ba tey tere nañ ci jullit bi jullit bu góor muy xool jigéenu jàmbur boo xam te nii xaraam na ko mu koy xool ci ab rafetaayam wala mu xool ko ci ay photo ba ci bànneexu nee loolu lu ñu xaraamal la ci góor gi waaye tamit lu xaramal la ci jigéen gi muy xool waxambaane mu góor xale bu góor bi ngir lan xooluk sopp xoolu xool goo xam te ni xooluk bànneexu la loolu tamit dañ koo xaraamal ci góor xaramal nañ ko tamit ci jigéen kon jigéenu jàmbur daal waree sóot xool lu xar kanamam wala ay tenqam ñaari loxom loolu lañ war a xool ci moom te bu dee xool boo xam te ni daf lay andil lor maanaam nga koy xool ngir bànneexu ci moom bu boobaa sax dootul dagan bu dee xool bu njëkk nag daf laa rëcc nga xool xool bu njëkk da ngay fexe bu ca delluwaat di xool waaye heure boo ci delluwaatee nag di xool ngir bànneexu ca bu boobaa dangay am baakaar kon daal jigéen ji war naa sam boppam ba fépp muy dem ak fu muy génn na fexe ba ñamiy fekki buñ gis ci moom lu dul xar kanamam ak ñaari loxoom muy tenqam waaw ndax bu boobaa bu dee dafa wàcc aw yaram moom képp ku ko xool dina ci am bàkkaar waaye moom mi tax ñuy xool ko dina am bàkkaar loolu lu jar a bàyyi xel ndax jigéen li léppam xawra la ba mu des xar kanamam ak ay ay tenqam bu dee góor nag la tàmbalee ci jumbaxam ba ci ay bëti umum moo nekk mooy nekk xawra kon loolu lu jar a bàyyi xel la kon góor daal warta xool jigéen xool lu dul xar kanamam wala ay tenxam leneen lu xool ci moom ngir bànneexu ca loolu am na ci bàkkaar bu dee daf koy xool nag ngir xàmme ko wala xam kii mooy kan boobaa nag bokkut ak xool boobu ñuy wax kon daal ni nga xamee noonu la alxuraan sante yonent bi ne ko waxal jullit ñi ñu damm seen gis jullit ñi war naa xool ay bëtam lépp lu dagan ci moom waaye nag lépp lu xaraam ci moom watandi ko ci ay bëtam ak góor gi tamit noonu jigéen gi tamit noonu ni góor war a wattandikoo boppam ngir xool jigéen gu ko daganut ba ciy bànneexu di ci am baakaar noonu la jigéen tamit war a wattandikoo boppam di xool ak jullit góor wala xool góor ngir bànneexu ca kon boobaa it day am bàkkaar kon daa sëriñ bi mi ngi tere ci nit ki muy xool lépp loo xam suñu borom daf kon nay wattandiku ay kon dafa mel ni suñu waxtu wi liñ amoon mat na kon naa dañuy yemale fii kàddu yi bu beneen jamono ñu sofaat ci kàddu yi ndax des na yi jullit wala wattandiku ci ay bëtam wala war ko ci xool ko ñu yeggale ko incha allah rabbi kon ñu ngi sant mbokk yi koy teewlu yëpp ñu nekk ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew ñu leen ñaanal suñu moom defal ñëpp jàmm defal ñëpp tawfeex ñuy wax ne lépp lu fi jub ci yàlla la lu dëng ci suñu jëm yu xeeb yi la in uriidu illa al islaaha mastataxtu ma tawfiqi illa billah ñu leen jox dig daje beneen jamono incha allah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Manzil tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéenee nañ ko fas yéenee liggéey liggéey